su mandat de dépôt avocat mi nag li ñu wax mooy def dañu ko def une détention arbitraire mu nekk euh, lu doy loo xamante ne peut-être question bi ñuy laaj rek mooy bu ñu tollee à ce stade lan mooy avenir u presse euh, au Sénégal. Je pense que c'est la bonne question à se poser Euh, on en profite vraiment pour euh, naqarlu bu baax a baax li nga xamante ne euh, ñu ngi ko doon jort te bëgguñu woon ñu yegg ca. mooy mhm. Pape Alé ñu placé ko sous sous mandat de dépôt je pense que c'était notre crainte mooy li ñu nekkoon suñu tiitaange. Mhm. te doonul loo xam ne également dañ ko ko yéene donte maa ngi dégg ñuy wax ni. moom pare woon na pour loolu euh, psychologiquement dans sa tête il était prêt pour ça et d'ailleurs mhm. préparé na également li nga xamante ne moom mooy famille éventualité euh, bu ñu ko jàppee ba bu ñu ko tëjee ci kaso gi mais kaso nag mooy doon loo xamante ne kenn mënu koo waaj kenn mënu koo préparé te kenn mënu koo miis. Mm-hmm. parce que du place góor euh, te dëgg-dëgg. sunu président de la république Macky Sall dañ ko bëgg wax ne ko euh, li mu waxante woon ak ak ñun defu ko ndax li mu waxante woon ak ñun toog ci plateau télé bu mag euh, ci bitim réew wax ne du doon ci nguuram incha allah la ñuy jàppee journaliste tey jàpp nañu journaliste te jàpp ñu n'importe lequel kii nga xam ne moom la ñu yóbbu rëbës tey placé ko sous mandat de dépôt du Pape Alé Niang euh, c'est l'un des plus grands journalistes de ce pays mhm. euh, je pense que bi ñu ko dalee wax ba tey dëgg-dëgg mënuñu cee wax luñ ci waxul woon mais dafa am loo xam ne dama ko liir benn poste boo xamante ne Ibrahima Lissa Faye te mu jiite journaliste journaliste ak éditeurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci presse en ligne bi yëpp daf ko def ma bëgg partager ak yow idée boobu parce que dafa tënk dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy sama xalaat euh, dafa ne à chacun son tour chez le coiffeur mm-hmm. mu ne Pape Alé y est passé d'ici 2024 d'autres journalistes daañu leen tëj ca prison bi mu ne ñun ñëpp dañu war a mobiliser wu pour défendre suñu ay profession suñu profession mm-hmm. défendre principe de la liberté de presse bi nga xam ne dépassé na la modeste personne de Pape Alé ça va mm-hmm. au-delà de ki nga xamante ne moom mooy Pape Alé Niang mu ne et ce ne sont ni des ba ci toog ci saal di wax du également ay post sur Facebook wala sur WhatsApp ci réseaux sociaux yi mu ne loolu mooy régler affaire bi li koy régler euh, nañ mooy ñu gën a yëngatu gën a taxaw am taxawaay boo xamante ne moom moo gën a am solo euh, te li ci topp mooy presse sénégalaise dafa nekk en danger te tous les journalistes sont en sursis mu ne seule la lutte libère mm-hmm. postu Ibrahima Lissa Faye bii ma koy nuyu au passage sunu confrère boobu nga xam ne euh, macha allah moom itam euh, defe naa ci ci génération Pape Alé la wala bu nekkul ci génération Pape Alé bokk en tout cas di génération bi ci topp. Mhm. Euh, loolu moo ko jox gëdd ak cër bi nga xamante ne am na ko tey ci éditeur ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy journalistes yi nekk ci presse en ligne mu jiite leen gis-gis bii nabu. Mhm. dafa tontu sa laaj. Mhm. mooy ne xam nga wax naa ko fii dama ne arrestation Pape Alé na ko journaliste yëpp jàppee message message boo xamante ne. Euh, nit ñi ñi kon jàpp ne li ñu doon wax naan dépénalisation de la presse li doon wax naan euh, journaliste euh, amaana mën naa am lu nekk ci réew mi wala mën naa def lu nekk ci réew mi waaye kaso moom dëgg-dëgg bokkul ci li nga xamante ne maanaam mën nañ ko ci séddu ci moom tey tëj nañu Pape Alé Niang mii Pape Alé mi nga xamante ne yàgg naa portel journaliste yi combat Pape Ali mi nga xam ne yàgg naa porté combat wu réew mi d'ailleurs ci combat wu réew mi sax la ko fekkee ci liggéeyam euh, daal di koy euh, jàpp daal di koy tëj ci koo xamante ne position am euh, ci jamono yi 2011 2012 boobu position la am tey ci jamono jii ñu toll mooy ne kooku il est constant musul wàcc yoon bi nga xamante ne moom la nekk te dëgg-dëgg naqarlu naa lool le fekk ma xalaat ni passé na guddeem gu njëkk foofu la ca rëbës ndax ña fa nekk ca rëbës naam Pape Ali gënu leen ay borom mi ndey lañ ay borom mi bàyyi ay borom mbokk ci réew mi la ñu bokk waaye dëgg-dëgg dafa di rek place dafa nekkul foofu Euh, te dëgg-dëgg yaakaar naa ne euh, buggoon naa nag dëgg-dëgg yoon bi ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk wàllum justice yëpp amaana bu ñu ko déplacé ci contrôle judiciaire sax muy dem di wuy ji yoon di dem ak dikk ñu bàyyi ko benn liberté bi moo ma gënaloon ñu nëbb ko jant bi tom complètement dugal ci ko ci néeg bu lëndëm boo xamante ne li mu liggéey réew mi foofu mu nekk du place am te mérito ko benn yoon beneen bi ci topp mooy mhm. nabu Euh, parfois dëgg-dëgg il faut ñu dépasser li nga xamante ne moom mooy discours yi il faut ñu dépasser loolu c'est-à-dire il faut poser des actes yoo xamante ne le message va être clair parce que li Ibrahima li sa fay wax dëgg-dëgg ku ko bàyyiwul xel lu la neex mën nga koo def ci réew mi lii ku ñu la yeewoon ne la Pape Alé Niang mën nañu koo tëj mu dem ci rëbës bee defe naa ñu bëri duñu ko gëm kon nag bu ñu ko defee Pape Alé mën nañu koo def ku nekk ndax Pape Alé dayoo gi mu am moo tax waxuma rek seulement sur le plan national mais sur le plan international euh, kattan ak doole bi mu am ak euh, parcours bi nga xamante ne macha allah bu riche bi mu liggéey ci wàllum presse sénégalaise si Pape Alé on est arrivé à ce à ce stade là. mooy ne kenn ku nekk ci ñun mën nga caa yeggi. te presse sénégalaise dafa liggéey. pour am li mu am tey acquis yi mu am yenn acquis démocratique yi mu am en tant que quatrième pouvoir dafa di maanaam xeex boo xamante ne ni sunu ay mag sunu ay kilifa ñi ñu ci jiitu dañoo ñafe pour que yegg fi ñu yegg ni tey donc aujourd'hui nga xamante ne y a la pluralité des médias macha allah télé yi bëri nañu rajo yi bëri nañu euh, école de formation yi mu ngi piluler de partout ci ñiy formé ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay journalistes ak ñi nga xam ne amuñu wërsëgu dem école may xëy na formé nañu leen ci ay rédaction ñoom la ñuy wax les journalistes qui ont été formés le tas mm-hmm. donc maanaam ñoo xamante ne dañu war a yeggali combat bi am combat nag du jeex parce que donte loo am am démocratie defe naa li nga xamante ne moom moo lay permettre yow nga mën a def sa liggéey nu mu waree sans pour autant nga am benn crainte boo xamante ne moom mooy peser ci sa kaw loolu nabu koor jar naa marche jar naa sitting jar naa gàddu pancarte surtout que ki ñu koy defal defal na ko fi ay journaliste yoo xamante ni image bi démb rek la ñu ko doon seetaan. Mhm. dëgg-dëgg mettitlu naa le fait que Pape Alé bi mu commencé nekk ci loxo yoon ba tey euh, dëgg la journaliste yi ñu ngi manifester li nga xamante ne moom mooy seen euh, compassion. dëgg la ñu ngi manifester seen colère également d'une certaine manière ku ci nekk ak ni nga koy wane waaye j'aurais voulu que taxawaayu taskatu xibaar yi mu gën a fës mu gën a feeñ mu gën a gën a gën a doon ay action yoo xamante ne dafay dépasser la parole dafay dépasser le discours dafay dépasser mettitlu bi te au-delà de tout cela également mu doon mouvement de soutien boo xamante ne il le mérite Pape Alé pour que moom fi mu nekk muy sentir chaleur boobu mu xam ne dëgg-dëgg ñi mu bokkal euh, corporation bi euh, wàllu woowu après être d'accord ou pas euh, sur euh, son travail ou sur sa méthode de travail ça c'est un autre sujet mais quel que soit aujourd'hui le caractère et la ligne bi nga xamante ne moom la tànn moom c'est un journaliste comme nous le sommes mm-hmm. donc il doit obtenir plus que des paroles un soutien boo xamante ne indéfectible ba moom fu mu mënti nekk mu di ko sentir bu baax. dëgg-dëgg maa ngi massawu njabootam. pourquoi discours parce que euh, li ngay dégg ci discours yi certes journalistes yi ñu ngi koy euh, nakarlu mais le discours le discours n'est pas aussi tranchant que sa bosse. nañ ko wax te dee parce que ñi ngay dégg ñëpp dinañ wax ah si war nañ ko mën a libérer parce que euh, liberté d'expression dafa am journaliste d'investigation dafa am journaliste la dafa nekk ci ay fonctions mais. pourquoi le may alors que yow li ngay wax euh, peut-être pancarte yi nga wax wala sitting bi nga wax dina yéex am. Mhm. parce que tamit ci seen corps bi. vous n'êtes pas d'avis ci pas nombre de chose yu bari yoo xamante ne war ngeen ko mën a régler. Mhm. parce que lu lu lu doy waar la ci à ce stade là ñuy taxaw di xaar que ni journaliste yépp taxaw nekk benn say am benn wax kàddu mooy lan euh, la liberté euh, de la presse est non bi Mm-hmm. alors loo xamante ne dañ koy négocier naan def na wala defu mm-hmm. parce que là n'est pas le sujet le mm-hmm. problème bi mooy il est dans ses fonctions journaliste d'investigation day dem wëri ay information yoo xamante ne le sénégalais euh, lambda bi nga xamante ne muy man wala ku mënti doon moom du ko am du du du du am li nga xamante ne mooy information yooyu mu ñëw teg ko ci place publique bi pour ñu def ci ay saytu. léegi est-ce que loolu noonu ci ci dans un dans un pays euh, démocrate est-ce que loolu c'est un la question pourquoi est-ce que bu ñu waxee ne dañuy defendre Pape Alé teg fa un mai pourquoi ce mai alors que moom mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci liggéeyam di liggéey pour est-ce que tamit booloo bi tax ñu naan presse est-ce que am na ko wala lan la wala dafa am ñu far fii far fale wala est-ce que tamit liggéey bi du joxe information rek bu bu bu leer te ñu saytu ko ànd ak càmbar gu wóor. Mhm. est-ce que du loolu mooy mooy liggéey bi mam waaw loolu dëgg la c'est vrai il y a une très li nga xam ne moom ngay wax mooy mhm. nabu xam nga. Euh, le journalisme au Sénégal, c'est une corporation très organisée, quoi qu'on puisse dire. Mm -hmm. Il y a des euh, maisons de presse qui sont syndiquées, regroupées autour du Sampix. Mm -hmm. yaa y a d'autres organisations où euh, ay ndajem journalistes yoo xamante ne ñoom ñoo fa nekk convention euh, de des jeunes reporters du Sénégal euh, yaa ngi dégg ñi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo bokk ci ci li nga xam ne moom mooy reporters sans frontières COP 21 bi nga xamante ne Socé ca la bokk saa Gossas ak Bamba Kassé bi mu fi loolu démb je veux dire dañu organiser. maintenant moi j'aurais voulu que li nga xamante ne moom mooy xeex bi ñi nga xamante ne dañoo organiser te journalistes yi bootu ci seen ginnaaw ñu influer li nga xamante ne moom mooy euh, ce ce ce ce mouvement là ki ne pas un mouvement de révolte en réalité mais surtout d'expression pour que nit ñi dégg li nga xamante ne moom mooy message bi Nabou Pape Alé mooy actualité moom la ñuy waxtaanee mais démb am nañ ci firnde Bamba Kassé am na ci ay journalistes yu bëri yoo xamante ne ñu ngi nekk ci ay tolof tolof jamono jii. Mm-hmm. nekk ci ay problème wala nekk ci diggante boo xamante ne ñu ngi koy régler ci wàllum yoon ñooñu yeneen journaliste yi ma doon man ak keneen ak keneen donc li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu solidarité de corporation bi man je trouve que dafa des ci lu bëri parce que Pape Alé li tax mu ab am am vent bi mu am parce que la personne de Pape Alé moo tax amaana bu doon keneen ci ñun coow li du baree noonu mais fi ñu laal Pape Alé mi ñu laal mooy journaliste boo xamante ne c'est quelqu'un qu'on ne présente plus ni dans ce pays ni ailleurs. Mm-hmm. nit la koo xamante ne également dafa liggéey ci presse sénégalaise. li tax mu ñu yegg si fii tey bokk na ci. c'est quelqu'un qui a mené le combat ci waxtu bi ñu waree mëne la combat xaarul woon kenn pour loolu donc kooku bu ñu ko càppee c'est normal que journaliste bu mu mënti doon ak foo mënti bokk. mu doon loo xamante ne da nga koy naqarlu wala danga koy mettitlu mais dama ne au delà de tout cela peut-être que ci mbirum Pape Alé bii nag dëgg-dëgg nga xam ne dem na ba ñu yóbbu ko rëbës fii la journaliste yi war a yewwoo ci lu bëri xam ne mbooloo mooy doole benn beneen bi ci topp mooy ki la nekkal ci ker gi bés bu nekkee ci naaj wi yow itam war nga ko mën a awu ci li mu nekkee. te loolu dafa am solo te nag bu xam nga lu mu métti métti ak loo mën a dund ci àdduna boo sentiree ne tu n'es pas weetuloo am na ñeneen ñu nekk ci sa wet sa mettit dafay am lu ci xaw a wàññeeku bu baax a baax mm-hmm. donc aujourd'hui vraiment des journalistes il y en a dans ce pays et il même beaucoup mais il faudrait que le message passe parce que ce message la Pape Alé bu doon dañuy wax rek mooy tax ñu bañ ko yóbbu rëbës kon wallahi duñ ko yóbbu fi ñu ko yóbbu tey mm-hmm. parce que ci plateau de télé yi ci rajo yi fu mu mënti doon tout le monde a fustigé son arrestation que nga nekk nag journaliste acteur politique wala nga nekk sénégalais lambda ak fu mu mënti doon nit ñi dem nañu ba ñaan suñu président de la république ne Pape Alé ni bu ñu ko yóbbu ci rëbës ndax foofu du place am. Mhm. place mu ngi nekk ci rédaction yi kon bu doon dégg rek la ak ñaan kon du yegg fi mu yegg nii tey. Mhm. waaye yegg na fa ba nokk te mënuñu ci dara bu ñu amoon moyen contourner loolu ñun contourner nañu ko bu baax a baax bu ñu sañoon Pape Alé du nekk ci kaso gii tey. bu ñu amoon sañ-sañ bi baa ñu am doole baa ñu am kattan bu boobaa du am mais xës na ba am ba noppi la bataille e que foofu mu nekk benn mu bañ faa yàgg te loolu il faut une certaine pression pour que ñu mën a sentir ni dëgg-dëgg kii fu mu nekk nii doonul lu nit mën a accepter surtout nag les journalistes de ce pays beneen bi ci topp mooy que le message soit clair mm-hmm. que ci mu réew na bu koor c'est-à-dire ba ci président de la république wala ku mu mënti doon ak foo mënti féetee ci réew mi war ngaa mën a am ragalu teg ko loxo sax woo ko ne ko kaay tontu. mais quand même c'est le quatrième. loolu loolu loolu mooy mooy mooy li nga xam ne mooy li gën a basique. parce que mm-hmm. je t'ai dit que démocratie cim réew mun munta am tant que bi nga xamante ne moom mooy quatrième pouvoir comme ni nga ko waxee presse bi nga xamante ne nii maanaam euh, ku fal daanaka moo la fal. ku folleeku bokk na ci yi nga xamante ne moom moo lay folli parce que en donnant des informations en révélant certains dossiers en en donnant et en étant tout le temps à la tâche yi ñi nga xamante ne dañuy fanaan ci rédaction yi dañuy liggéey dañ ci yendu ba yenn heures yi di joxe lépp pour que ñi ñi mën a jot xibaar bi ñu jot kookee dëgg-dëgg dañ ko war a craindre nekkul koo xamante ne dañu ko war a dañ ko war a facilement war a mën a mettre aux arrêts war ko mën a jàpp dara du xew cette liberté de la presse dama ni ay nit suñu ay kilifa ñun ñu ñu fi jiitu dañoo xeex pour yegg si fi ñu yegg si tey. à nous nag de maintenir ce flambeau là pour que même bu dul ñun génération bi ci topp ak kuñ fi mën ci fekk ci wàllum régime ak yooyu ñu mën a def seen liggéey. tranquillement te xam ne dëgg-dëgg la liberté de la presse il faut que ça ait son sens dans un état démocratique quoi qu'on puisse dire l'arrestation et aujourd'hui l'emprisonnement de Pape Alé Niang est un vrai recul démocratique pour le Sénégal merci beaucoup Yacine. waaw man euh, comme dafa naa métier bi xaw naa ci yàgg. Mm-hmm. nga xam naa ci yàgg trop am naa ci expérience tuuti.